daal ko wàcc mooy gis na jàmmarloo Ousmane Sonko yi Macky Sall yoreen boog moom ku def da am ay privilèges yoo xam ne du ko am ku saaga Ousmane Sonko itam di nga am privilèges yoo xam ne sa morom du ko am ku jàmmarloo moom ci di ko empêché ci politiquement da nga am privilège boo xam ne Macky Sall ku dul yow ñoo ko defal du ndax gis ngeen ko ba muy wut ki ab si ngeen si dafa perte élection yi ñëw ko ma ñu nawee ay ministre dañ kaa boole ministre yi Matar Ba gis ko moom mi nga xam ba ñuy élection ca euh, Fatick da koo gagné waaye teewul dañuy dàq ministre ak boo ak maanaam ak malgré résultat bi def ci ministère ba sax ci indiay coupe d'Afrique man da ngay góobu waaye yéen Sénégal yéen ko bëgg nit ñi bëgg rek moom boo ko bëggul itam faaw boo ko gëmul itam faaw ko amal kon ci seen système euh, seen système gouvernemental boobu ni ngeen di doxal ci ni nga ko gisee gëmee ko ni am na fa am na fa minimum am résultat mais ñiy defal dañ ko dàq ndax ñu dàq ko mooy daa jaamoon doon Ousmane Sonko defar bañ taxawal leen gouvernement di combat léegi nag étudiants yi dañuy laaj di koy kaame maanaam amul benn droit boo xam ne bi ñu koy laaj kenn ko laaj laajuñ ko ci droit maanaam jëndi luwa luwa yi nga xam ne moom moo tënk maire ci ay compétence am lii ak laa dafa wàcc ni mu fayal suñu jàng wala fayal na ay kër yu dëkk wala dañuy jox cinq moom cinq millions par weer deewu ne amul ci benn taxe bu ngeen koy fekk amul benn taxe bu ngeen koy fekk mu jaral leen nag ñu ñëw yor seeni yor seen i casserole di tëgg di def li ñuy wax concert casserole yàlla leen ñuy yi nga xam ne maanaam ay xale fa ne di jàng ñu leen di génn te pour ñu àndal ñoom manifestation bi loolu rek aspect politique la boo xam ni ñu ngi ko jëlee ci maanaam ku mel ni ñu ko am ñenn ñi ak ak ñenn ñi nag ñoom. ne ñu waroon a jëmmi encadré loolu ci misaal bi ñu fi amee ba ñu ngi leen romb am seen bi ci buntu ay école wala seen camion yooyu ci buntu école yi te empêché mu leen ci liñ bëgg def ñu léegi nag ba àgg ci maanaam ne ne dañ koy defal concert casserole dañ koy defal concert casserole digg bëccëg média bi nga xam ne ñoo nekk bi Sénégal média classique bi nga xam ne ay marionnette lañ naan waaw ku mën da jiite am ab dëkk képp surtout Ziguinchor benn bii dañoo jiite Sénégal xam nga desaan loolu ak yàq la wane ne laajum si wala laajum yaa ngi laaj boo xam Iran daanaka yàgg na boobu ba tey manifestation yi te umbul topp leen maanaam day amul benn média bu ne ci Iran taxaw yoo a maîtriser leen parce que nit ñi parfois dañuy def ko président moo leen ko def loolu moo leen koy bàyyi loolu ñooy organisé wu di ko def ci seen bakkan di ko di ko def ci seen kenn xamut encore une xam ne dafa dafa dafa illégal ngir leen pay boo xam ne ay militant la yoo xam ne seen patron moo leen ko daan fayal man dëkk bii di Sénégal bu dee am na kenn ku ñuy rëbb di ko wër kenn la moo man Ousmane Sonko rek kon nag fu may génn xaalis ak bu ko jaaral day leer nañu day wóor kon mel na ni ñoom dina am bi ñu jaaral wala système bi ñu doon jaarale ay financement bu ko bu ko nangoon wéer bu tey jii li tax ñu ngi tudd ci rapport bi ci rapport bi ICE bi bu nga mën na ko caatal waaye léegi fa mu leen dugal actuellement maanaam dana jël kër bi dina fayal fay ga dane kookee bu nangoo ma dana wër waat contrat waaye fii deux mille fii euh, trente trois bi moom man parrainage loolu moo ko fayate wala loolu moo ko fayate parrainage ndax xam ne léegi ay réforme la mooy dafa jël jëmmi kër boobu doon fay war a fay bi mu nar a fay étudiant yi kooku bu ngeen seetloo wax euh, recrutement ci kàddoom la ni ñuy def dafa jël mbir yi ci misaal mu daal di koy defaraat soppi ko mooy da koy yóbbu commission sociale ko yóbbu sociale xam nga maire daa bokk ci ay compétence am loolu nga xam ni jëmmi ku am soxla dëkk ci dëkk bi fa mën ko woon dëkk ko dimbali ba demee ci maire yooyu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 moom mooy surveiller ko fay dugg ak ay génn kuy ku fay dugg yéen dañuy xool ba xam ne yow aajo woon nga nekk fa ñun nga xam ne gars yi dañuy politique waaye seen bi te jubul dara ndax tey jii boo ñu fa nekkoon a gis koo xam ne maanaam aajo wul ku koy dimbal am na lu mu fayam am na lu mu fayam fu am na lu mu wala wala ñu ko nit mën ko boo ko aajo di ko fay fa indi nga doon fanaanal wala kenn di def fanaanal da nga xam ne boo dikkee nu mu wax na dañ la gëstu xool la ba xam ne yow yomb xam nga ku mel noonu a dugg am na ci koo xam ne nag dinañ leen dimbale Ziguinchor waaye ñàkk politique ak na sax bu ñu amee bëgg toog na Ziguinchor ndax amuñu ay moyens yu ñëw Dakar ñooñee a ñëpp doon xaar rek moo teg na ko ci yoon loolu nag man ci lañ ket ci lañ loolu nag ku mel man ci la koy ndax kuy laaj tool ni mu réew ñu jox ko xam ne lépp ñu borom ko xam ne mbir mi war a jaar ci yoon yi lay ay bokk ci ñoo ko loolu nag man mooy première question bi nga xam ne gis naa ne doxal na ko beneen ba ca doon ko mooy jëmmi média bi taxaw na la ku mënta yorum réew mënuloo yor ku mënta yor nooy laaj am réew moom su Sonko loolu na sant yàlla ndax ñoom ñoo ko def woon ab salafiste nga rek xam nañ ne maanaam jëmmi moo di tamit yaa ak xaatir ak ñu mel noonu ñoom a salafiste moom boo ko doonee doo jël seen ndar la doo ko jiite seen ndar ndar rek doo leen yóbbu ñu gis nañ loolu lañ ci juddoo bañ ci demee dem dem dem di ko jàpp gise ci seen kéem dalaay kàttan loolu la ñuy dégg ñun yàlla déggu leen keneen déggu leen ndax amuñ ci ndam buñ ci da see àgg ndax ndax du am benn militant bu ko kenn de soxora wala bu ko nguur bi soxora bay xaaral ñu jógee bañ ci jógee fexe montawaat ne maanaam ne ci ginnaaw Russie ñoo naa France moo ne ci ginnaaw ay li muy def moom li li ñëpp di dafay def moom bu leen ko war leen ko gànnaaw waaye bañ xoolee ba xam ne lii itam jàll en tant que influence ban influence lañ jëlaat mooy jëmmi criminalité si bi yàlla ndaw na góor si dafa yore gi bu leeree xanaa fi justice nañ jot bu leeree xanaa fi justice Sonko day wuyu ba sonnee ba ne day wuyu ba Sonko wuyu ñu dem na léegi ba ba ne test bi mënut a jàll ñu ne léegi kon day def preuve de moom seen seen diabolisation yi moom maam saar wu tare bu jeexee ñu tare waaye loolu mu wàññi ko dara bañ ci jógee ñu ne léegi ay force spéciales yoo xam ne moom bokk na ca bañ xoolee dossier ba ñenn ñi nga xam ne nañ pour am fayat bi am gëstu mel ni keroog daal seen ak dambo bu mel noonu yàlla ñoom indi ay preuve yi leer na ba nga xam dem kër dossier ko Sonko ñu fa wax ci rabay waxal sa position ci surtout tey ci luñ bëgg a dem mooy a instrumentalisé ay étudiant naan waaw mën dañuy dem dëkk mënoo ji dem wax loolu yi borom xel la ñuy wax mbirum Sonko moom buñ bëggee ba nit ñi ba Sonko ñoom nit ñi buñ bëggee nit ñi ba Sonko man ña ña ña benn point rek laa leen ci jox benn point mooy jëmmi CFM groupe Futurs Médias ñoom bu ñu àndee Sonko commencé koo xalamaan ñeenti fan ak juróom ñu bari seen xel dana tey Sonko avant ñu Sonko fan la jaar ba négocier nii soo waa ñu bari dinañ ko war te ñoom loolu seen xol muy leen wala kon seen xel ci combattre ko beneen da ca doon lu ko itam mooy moom Sonko la la moom Sonko la mu wax ni maanaam euh, waa këram bu fekkee ne ñoom am na am naa fay ndaw am naa fay ndaw yu comme ñoom lu ëpp ndaw yi ñu am su bëggee daal sama kër daal sama mère dinaa wax sama ndaw ñu gën loolu lépp lu may dégg bu xew xalaat moom bu santaane xuloo bu sant bu santaane xeex ndax tellement ni yoru réew mi de waaye baatu réew moo ko yor baatu réew moo ko yor mooy bu ne bu ne dama ne ñëpp ne ah su waxee pare ñoo xam def nit ne bu àggee foofu ci réew maanaam dafaa war a xam ne yenn yi boo ko dee def dana yaakaar ndax ñi nga xam ne ñoo jëndoon lu daan teg suuf sax daw nañ nee nañ dafa jël président bii di ñëw wóorut ñu jëndoon université suuf sax daw nañ ndax nañ ci président bii di ñëw wóorut ak yeneen ak yeneen yu nga xam ne nii ñëpp ba defar seen i mboolem étranger yi nga xam ne dund nañ ay cawal defar nañ seen i am ba mu jekk ñu toog élection présidentielle yi ñu bari ci ñoom du fekk dañuy dem xool ba xam ba xam ne ëllëg réew mi demee dañuy doon bu ma Sonko toogee ñoom ñëpp dañu dajale seen àll rawal bu Sonko toogee dooleel Macky Sall bu toogul nag ñu daal di ñëwaat ak seen caay moo tax Sonko guerre ak combat ak xeex ak jaxasoo démocratie tellement bi fi am moo ko fenti nañu ko yokkal te luñ ci am xeet nañ Macky Sall yi mos am ko naan déet te boo fi nekk doon du dégg du dégg déet bi mu ko waxee commencé di dégg teg ñëpp am na njàmm ñu nekkoon ak technique ñu ci woon bu dul jaax malgré bawuñu ko waaye ko te gannaaw yàlla yaa tax gannaaw yàlla wéyee yaa tax ndax situation Sénégal actuellement fi mu tolloon kuy wax yàlla xam nga ne xam nga ne lépp lépp lépp jafe